na ngeen wéy di abonné fii ci Darou Mouhty di abonné bés cloche notification bi partager vidéo yi ngir bépp vidéo ñu mën dugal ngeen bokk ñu ko a jot jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen di leen siyaar di rafetlu bu baax bi ngeen ànd ñëw ci la wax bu dee kan nga ci te bés cloche notification bi ngir bépp vidéo bi ñu dugal jot di ñaan ngeen partager vidéo yi tey jëm. tey nag dañuy indiwaat ben benn laaj si di ko laaj suñu Abdourahmane Mbaye rahimahullah taala suñu Abdourahmane dañuy laaj ya, lan moy njëriñu alxuraan ak la mooy melo alxuraan ak képp ko xam ne yaa ngi tuddal alxuraan lan moy don ci wala ëllëg bismillah suñu Abdourahmane alxaaris ibnul xaaris moo ne yonente bi dañe won lab moy kenn walu gëm yalla ñene nak fekkee ak imaan firiwuñ ko gëm lañ koy firi foofu julli ni ki wa maa kaana allahu li yudii'a imaanakum xam ne imaan ji foofu ay salaatakum ila baytul maqdis buñ fiiree fi al julli daal te laab moom mooy tax julli wér kon ñu ne laab mooy genn wàllu julli am ñu nag al iman day fii rek gëm wane ne tuyaaba ji ñu fayee ci gëm genn wàll ko la ñu fayee ci laab mu tekki ne alhamdulillah baat boobu sant yàlla daa bare bari tuyaaba ba buñ ko defee ca place itam dañoo bare bari tuyaaba ba boo doon misaal seen tuyaaba ni mu rëyee da ngay wax ni tuyaaba ji day fees dell diggante asamaan ak suuf ba leneen di ca xaj mu ne julli leer la mooy julli day maye leer day tax itam nit ki sori lépp lu yàlla bëggut inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar mu ne sarax itam firnde la aw lay la wane ne kii di saraxe ku gëm yàlla la ndax alal dafa sori ci xol ku koy joxe ngir yàlla rek te fekkul mu war ko firnde la ju wóor ji woon ne gëm na yàlla mu ne muñ ak leer la muñ dafa rëy lool daanaka lu baax lu ne muñ mënu caa ñàkk ba yàlla ne wastaayinu bis sabri wa salaati te leen dimbalikoo ak julli ci seeni mbir kon muñ ko yobu jàppe ko ab lamp boo xam ne moo lay leeralal ak foo man di jëm mu ne alquran nag ku ko xam te jëfe ko ngir yàlla bu ëllëgee ci bis penc mu doon saw lay mu lay taxa dal ak jàmm ku ko jëfewut nag wan ko gannaaw bu ëllëgee du amu bu layee dañu koy yey alxuraan ci boppam mooy layoog moom yey ko mu ne it nit ñi buñ xëyee dañuy def ñaari xaaj am na ci ñoo xam ne dañuy jaay seen bopp yàlla taxaw temb ci la yàlla gërëm yàlla daal leen di goreel ci sawara ñu mucc bu ëllëgee ñenn ñi nag xëy jaay seen bakkan saytaaneeg bànneex ak àdduna bu leen yàlla dabaatalul ci yërmandeem nag ñu daal di àggu asaro am na addis bu ne man qaala xiina yusbihu wa yumsi arbaxa marratin allahumma inni asbaxtu ushiduka wa ushidu xamalata xarshika وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتقه الله من النار ومن قالها مرة أعتق الله ربعه ومرتين نصفه وثلاثة ثلاثة أرباعه وحين يمسي يقول اللهم إني أمسيت إلى آخره اللهم إني أصبحت جي sëñ bi am na ko ci njëlbeenu Mawahibul Quddus dañoo wax ci addis ba ne ku xëy wax ko ñeenti yoon tàmbalee allahumma inniya asbaxtu uxiduka ba ci wa anna muhammadan abduka wa rasuluka ku xëy wax ko ñeenti yoon yàpp dañoo wax ci addis ba ne ku xëy wax ko ñeenti yoon tàmbalee allahumma inni asbaxtu ushiduka ba ci wa anna muhammadan wa rasuluka ku xëy wax ko ñeenti yoon yàlla góoreel léppam ci sawara ñu ne bu ngoon na ngay wax allahumma inni am saytu jàll nag ci ushiduka suba gi la ñuy wax allahumma inni asbaxtu buy suba buy ngon nak wax gi yenti ya yoon ci lañuy gorel leppam ci sawara waye bu ko waxe ben yon ab karam lañuy gorel bu ko waxe yar yon genn walam bu ko waxe yett yon ñetti karam wa jërë ngeen jëf bokk ko non ñaka koy ñu bàyyi ci xel bu baaxa baax ñu bàyyi ci xel bu baaxa baax wa te bañe a déglu wa yi nga xam si fay jaar ñu bañ a diwlu xeet wax yooyu xam jëm dafay jaar ndax ñooñu daanaka suñu borom a toroxal ba noppi jël nga ci ñu ñaan nga abonné na ngeen wéy di abonné fii ci Darou Mouhty Vision di abonné bés cloche notification bi partager vidéo yi ngir bépp vidéo ñu mën dugal la ngeen bokk ñu ko njëkk a jot jërë ngeen jëf